asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu seetaan eh, ci jàmm ji info point net maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar eh, di amati mbégte bànneex jàkkaarloo waat ak yéen nag saa su ne yéen ñi nga xam ne eh, yéenay bëggee jàmm ji info waaye tamit may ziar bu baax a baax sama cadre bu mag bi nga xamante ne moom mooy Cheikh Dramé internet yi ma di leen fàttali yéen a ci seen émission bi nga xamante ne moom mooy Adji avec saa su rek ni ma koy defee nee naa leen damay seeti ndaanaan toog waxtaan ak moom ci li nga xamante ni loolu la yëngu mais tey nag damaa seeti nag rappeur xam nga rappeur yi jamono yi dafa mel dañoo teg tànk ci dëkk ci dëkk bi di seen diggante ak mbalaxmaan yi dinañ ci wax ndax nag rappeurs dañoo génn seen gaam des di dem ci mbalaxmaan yi parce que yéen a ngi gis ay juyoo yoo xamante ne rappeurs yi koy def ak mbalaxmaan yi waaye tamit ma seet si talent koo xamante ne Lo Black lañ koy wax waa Pikine bëgg ko lool bëgg ko seen bopp ba tax na fu nekk rek ñu may woo téléphone ngir ma euh, toog ak moom tey nag am na yaakaar ni kontaan ngeen ndax moom laa seet si euh, Lo Black maa ngi lay la nga nuyu ñi ñi seetaan ay ça va aji maa sa euh, cadreur bi di bëggee sam gaa yëpp ah, di bëggee blaaka blaaka yëpp di bëggee sam papa di bëggee sama yaay di nuyu ñëpp ah, képp ki bëggee Lo Black ak foo mënti nekk maa ngi lay bëggee. Mm-hmm. parce que Lo Black dafa nekk no boo xam te dafa ma neex quoi en plus mu ngi jógee ci sam côté papa parce que sam papa mu ngi tudd Cool Black man ma ñëw joxe Lo Black parce que loo bi mooy sam sant quoi mm-hmm. mais gars ñu ngi may woowee ndox bu ñuul pétrole oh. waaye Lo Black. non moo tax dama ñàng. sama <laughs> papa danoon rap. eh si sama papa rappeur la ba le ba tey jii mi ngi Boz Rap Cool Black ñëpp xam nañ ko ah. ñëpp ñu ngi koy bégee. Mhm. parce que mi ngi def affaire yi nice. Mhm. di ko wax bégee père. d'accord est-ce que mën nañu xam ndax euh, tey da nga kon li ngay def parce am na ñoo xamante ne nag dañ naan waaw samay parents day doon ma doon ñu ko ci moom mais doom bu ma yàlla may la mais ndax yow da nga ko doon ci moom. si man dama ko doon dama ko doon parce maa ngi doon sama benn son bu ma naan mënuma pap dama judd fekk paa di kepp microphone mu ne ma paap parce dama judd fekk sama papa yi musique ah. moo tax benn boy si game mu ne ma paap lu ma doon lu en plus lu nekk si man la te dama koy yee toj town bi yëpp incha allah. mais moo tax nga ne yow pétrole la parce que pétrole moom la àdduna àdduna bi yëpp di wër te Low moom la bi yëpp di wër ah. Mhm. fii foo dem ci town bi ñëpp ñu ngi bégg Low Black. Mhm. te defaguma dara maa ngi ñëw ak affaire yi gën a dóob ko yooyu incha allah. mais mais sa diggante ak mbalax maani ndax yow eh, da nga jege mbalax maani nag. man boo dégloo sama sound doo si gis doo si gis mbalax ah. man maa ngi rap colin bi affaire de kaana la ñun ay kaana lan ñun ay ñoo kaana du xalaat te ay booy pigin lan ay booy pigin lan ñun ay kaana lan quoi waaye. est xam euh, ñaata single nga génne. actuellement ñu ngi si projet quoi jotoon nañoo gé jotoon nañoo génne ay sound mhm. c'était en 2017 je pense mhm. moom lañ ko génne woon. après defoon na si projet projet boobu jul génn quoi après man ma ñëwaat defaat projet projet bi Blaka Blaka yi mooy premier titre projet bi projet bi muy génn mois de janvier bi incha allah. d'accord euh, bi nga xamante yi euh, parce que Blaka Blaka mooy mooy sama gang quoi. man gang mooy gang mooy groupe quoi. man li tax maag rappeur yi duñ juboo lan ma wax lu leer. non gang gang mooy groupe quoi waaw groupe Black Black yi mooy sama groupe mooy sama site parce que Black Black yi man maay seen man maay Black Black bu mag bi ak yeneen gars yi mais maa ngi jaar fa du bëggee Amly président Black Black yi ah. Black Black yi xam na lu may wax Black Black du bàyyi. Euh, ñu wax ci ci clip bi ma lay laaj xam naa peut-être comprendre bu baax li may euh, bi nga xamante ni moom nga génnee tey jii euh, boobu ma ko doon décortiquer. non clip bi clip bi moom mooy loolu ko parce que clip bi ànd nañ si ak ñu si war a ànd ah. dem na job na son bi dem studio prise sound bi gars yëpp avoué sama staff ñi may bëggee ñi may àndal di liggéey ku si ma ni Po ku si mel ni Pass ku si mel ni Momo ñëpp ñu ma sound bi nice ma tey woo sama papa mun ma sound bi nice na après booy ni pourquoi pas ñu clip ko si leen dem sam benn grand auji maa ngi koy bëggee xam nga wax moom juboo ñu fay ko mu tourné suñu clip clip bi gën na def boobu parce que ñun foogoo ñu ko woon fii ah, mais ñi waay foogoo foogoo ñu ko woon fi nga mais yàlla baax na en day gën a yaatu. day gën a yaatu incha allah. est-ce que mën xam idée boobu fan la jógee parce que sound bi soo déggee daf lay jox daf lay jox rappeur yu kawe alors que xale nga. si si dëgg la xale laa xale laa si âge mais mag laa si si maay naa parce que maa ngi bind ay lyrics yoo xamante ni grand frère sax dañ may laaj nu mu demee nii. Mhm. parce que boo xoolee boo xoolee sound black black bi boo xoolee premier couple bi dama riim boo xoolee deuxième couple dama ñëw changer musique bi ñëw ak beneen technique bu garaaw boo xam te ni boo yëpp da koy bégee comprends nga boo yëpp da koy bégee parce que Lo Black moo ñëw imposer benn affaire boo xam dafa nekk si moom en plus musique dafa nekk si man quoi te dama gëm sama bopp ah. dama gëm sama bopp bootuma si ginnaaw kenn. ñu demaat inspiration clip bi dañoo dóor sound bi sound bi nice. inspiration sound bi. Euh, dama waxtaan ak sama beatmaker bi Young Boy on ñu toog dama ko kóol ñu waxtaan ma nga dama bëgg a dóor benn sound black black quoi parce que moo nekk sama bopp fekk sound bi bokkul woon sa si projet bi ah sama black black bi bokkul woon si projet bi mais à la fin lañ ko si boole te man maa imposé pour boole ko si léegi si la waxtaan ak yoon booy mun ma amul paf mu job instrument bi seen ma ko man job son bi son bi maa ngi koy joobee maa ngi koy si benn bus benn deuxième couplet bi maa ngi koy joobee si bus si biir euh, 59 bi dama duggoon biir 59 bi mhm. takk sama écouteur di déglu instrumental instrumental bi daw mhm. ma xalaat gis ay affaire yu nice ma bind ma bind ko mu jox yóbbu ko deuxième couplet affaire bi ñëw tasaare deuxième couplet si sound bi mooy loolu non non sama papa jour bu ko tegal mu déglu ko mhm. sama papa jour bu sound bi laa génnee laa ko tegal mu déglu mu déglu ko jàpp si parce que xamul woon ne sax dem naa studio ah. waaw ah, man sam maa ngi ànd ak sam group bi dem studio ñu affaire bi door ko affaire bi naas mais bala ma xaa jox kenn mu dóorul ko sam pap laa ko ñoo ko jox. fàttali ñu euh, loolu nga doon wax ci euh, sound boobu. maa maa ngi ñëw ni maa ngi ñëw ni. Euh, ne dama ah. maa ngi ñëw ni eh, xool ma fii bro. nuru naa la ku dul dem non mbaa ma cene gaay bendo mën a gérer samay lengo fokk yu yow ngay endo te seen yaakaar ni eeto bandi la wooyu ma iino kenn du ma neves top non non non ndiga yow dafa fi dara so jógee di ñod ay kana man defaaloo ma ennemi maa ngi compté samay bénéfice fi sa bët yam rek nga mën a gis li xel li daj doo ko mën a siib blague ma fi ne bumu la jeune fils bàyyi ma compté samay bénéfice macha allah eh, neex na de neex na de eh, li nga li nga li nga ñu indil nii moom macha allah xaw ma nag album bi naka la war a mën a demee. non projet bi incha allah day génn te temps bi que booy black black yëpp ak ku dul yëpp ñu ngi taxaw di xaar projet bi incha allah te bi pare na ko pare na mi ngi génn mois de janvier bi incha allah rabi. à boobu nga xamante ni yaa ngi koy wax eh, waxuma ci projet bi dama bëgg a xam maanaam après boobu ban nga ci fas yéene waat teg boo xamante ni moom mooy ànd ak album bi. après boobu bul dalu sax hmm? bul dalu sax bul dalu sax parce que black black warul dalu ah. no non black black du dalu non black du dalu dañuy xëy joob yi guddi gi ñu nekkaat suñu bopp ah black black du dalu sax non heure bu heure bu ma dalee rek mais mat maintenant damay dem liggéey ah mais des fois ma toog fi may liggéey bi nu fa ay texte mhm. waaye. mais guddi gi moo lu may bindi texte si am naa leneen lu may liggéey maa ngi maa ngi nekk sama place papa di di réparer réparateur machine ndeysaan xam nga nag Omar dama bëgg genre boobu xale yi nga xamante ni ñoom duñu ne tey sama carrière wala sama life dama ko yemale rek ci caméra il faut nga am leneen loo xamante ni moom nga koy boole man su ma toogee ak genre xale yooyu damay fi damay am fierté ci ñoom kon donc loolu noonu yaakaar naa ni ñi xamante ni ñoom ñooy seetaan gën nañoo am yaakaar ci yow tey ji boo ma doon waxaat album boobu ñaata titre lay doon. album boobu cinq titres la EP la cinq titres lañ ko def mhm. pour génne ko lancer ko affaire bi jàll. loo blague bi di daw après ñu tag ci ay yenn affaire yu gën a dóob financement bi si fi may joobe la jóge parce que maa ko doon liggéey sama xaalis la maa ko doon liggéey di ko dajale ba am ko dem def ko si sound yi mhm. waaw nekk sama bopp ah, du ma dalu sax non man amaguma producteur mais mais am na ñuy jàpp samay samay affaire comme Kev mhm. waaw parce que à chaque fois mu may woo di waxtaane man si affaire musique mhm. mooy loolu ma demee mu defar ma sound bu nice ñu génne ko mu kuul mais est-ce nga yow. waaw non loolu loolu si paa bi la si paa parce que man sama affaire dama ko jox sam père quoi. non du sam ménagère. po mooy sam ménagère. non comme par exemple ni tey jii buñ buñ ma buñ bu benn producteur ñëw ni daf may produire. Mhm. comprendre nga sam ménagère lay waxal. sam ménagère bu waxee man laaj ma boo xam d'accord naa wala d'accord ma damay dem sam papa. li ni mel maanaam dafa raar euh, tey xale yu ci bëri ñoom bu ñu demee ba am âge bi wala suñu demee euh, ba tàmbali liggéey bu mel nii dañuy xaw a seppi seen i même su fekkee dindi wuñu leen si ba mu jeex dañ leen di seppi mais pourquoi yow nga préféré euh, jël paa bi dugal ko ci biir liggéey bi en 100 pour cent parce moo jàpp samay bagage tamit parce que moo ma jël yóbbu ma place am ma fay liggéey mu jàngal ma ma fay liggéey bay am lu may mën a defal sam bopp ba tey jii nii ku déglu loo black gis image loo black xam nga si sam papa la jógee quoi parce que moo ma jàngal ma dem liggéey foofu am fa weccit di sant yàlla tamit def samay bagage mm-hmm. waaye parce que sam lépp la moo tax ma jëlaat lépp teg ko si loxoom parce que mënoon na ma bàyyi waaw moom mel na neen mais def ko waaye. kon ñu ñu lay bëgg bu baax a baax papa euh, li ma bëggoon xam rek mooy est-ce que pare nga tey pour gérer lépp parce que ku ne xam ne ni game dafa bëri xat-xat dafa bëri buuxante classante bi ndax yow pare nga loolu. yoo man du ma dalu sax pare naa pour lépp. pare naa pour lépp te Pikine fii maa fi teg tànk amul keneen. amul keneen non non. foo teg loolu. Ah, sama sound. rab rab dafa jax trop. mais gars yi ñun Pikine bëgg nañ booy bu am talent. Ah. ñun Pikine dañoo yàgg si musique bëgg nañ booy bu am talent. luñ mën lu ma ragal ma loolu. ma ragal ma loolu du dalu. tey defal ma benn freestyle boo xamante ne ci genre boobu lay eh, la pare na wóolu sama bopp pinu palenka ol booy noonu lu ma tiit si ñoom dama dugg si game bi léegi gars yi xoof ku ma ñaan fees fees di nga oof nga ne booy yaaf man xaa da nga doof gisatoo sa fan si ndax dañu maar mais dinaa leen jël may leen ndox ñoo invité seen concert wax leen lu ma laaj dafa seer loobu lak ma fi dakk dóor leen poisonné game bi di fay ku salaire maa ngi si yoonu technique kaay ma pousse la may la paas ndax xamoo lu métti dundoo jaxal noonu match du combat mais woo ko yaasa ma taal leen dama lay daajal maa nga toog xaar ba dee ndax yeneen moom du ma dem fenn laay bee tar léegi péri di daw nuyu fas cour su ngit ut alal bis ah, nice na macha allah boobu boobu na xam naa ni boobu rek tax ma dem jënd ji album bi ndax mën nga maa wax titre yi ci album même bu fekkee woyoo ko bi sant yàlla la ak black black ak euh, idol black black idol sant yàlla ak intro bi ak sëtu Morlam ay euh, tey boo amoon tey euh, benn conseil boo xamante ni moom ngay jox rappeurs yi mag yi nga xamante ni instant bi yàlla jox na leen bopp ngir ñu mën leen bàyyi xel yéen. non rappeurs mag yi conseil bu ma leen jox moo ñu gën a xool booy quoi parce que comme grand yi fi njëkkoon nekk dañ doon xool booy ndaw yi ku si mel ni Canabasse ku si mel ni Canabasse may na booy booy bëri loxo ah. kon rappeurs mag yi nan xool si booy ndaw yi ma leen may loxo mais mais bu ñu paree euh, maanaam bu Covid bi demee ba jeex ci ci ci àdduna bi tey est-ce que pare nga pour teg yeneen projet lu mel ni comme tëgg ay concert jagleele ko say fan si noonu la fa demee loolu déjà waxtaan si ba pare actuellement mois de euh, avril bi incha allah waroon nañoo door concert parce que waxtaanoon nañ ba pare mais comment Covid Covid bi demagul xam nga dañuy essane bàyyi ba mu dem quoi mais ñu ñaan yàlla tamit corona mu jóge fi quoi ñu nekk suñu activité. Mm-hmm. avant Covid waay man doon naa fu nekk concert ah. doon naa fu nekk concert no soirée mosuma tëgg soirée. kan moo ciy sa idole wala kan nga ciy déglu ci ñett ñi mooy Ngaaka Dip ak ki nga xamante ni moom mooy Simon. no man Canabasse laa ëpp lu may déglu ah. waay parce que moom moo may jox lu ma soxla si musique bi mais damay déglu ñoom Simon damay déglu Ngaaka damay déglu Dip. ak ñëpp ah, mais Canabasse lay ëpp lu may déglu parce que lu ma soxla moo ma koy jox en plus sam clip bi mu pré jour bu mu génnee tag ci lendemain bi la ko tasaare si net bi. na eh, yow ku si mën. man a ñoom ku si mën. Mm-hmm. non man ak ñoom bokkuñu saax. maa leen waaye loolu kenn waxatu ko. loolu kenn waxatu ko bul ah. dalu sax. balaaka balaaka bi moo mën si game bi. maa man ñëpp ñu fi nekk non c'est pas l'appel may wax may wax non no de question nga ragal mais ku nekk xam na ku la mën non sama morom sama morom yi moom lu ma leen conseil benn affaire la ku si jàngul dama nga jàngi métier après nga boole ko ak musique bi mhm. parce que demee kenn xamul na lay demee ah. mhm. waaye te mag day ñëw tamit njaboot day taxaw mhm. loolu laa am lu ma leen conseil samay projet bokk na si projet bi ma nekk nii mu génn Euh, suñ mixtape bi nekk ni bokk nañ ci mu génn après ñu door ay concert dooraat yeneen mixtape door album maa ngi bëgg Blaka Blaka yëpp cat ba cat su ma lumee damay juum di ka teg si amali président Blaka Blaka yi di nuyu sama staff bi yéen fan ah. sama bi ñëpp maa leen bëgg di leen nuyu di ka teg si loxo Po Askrim nuyu nuyu Pikine nga di nuyu caaro yi di nuyu fépp fépp fu Blaka Blaka nekk maa ngi koy bëggee mhm. waaye di bëgg ñëpp ah, di bëgg Blaka Blaka yëpp en plus di la bëgg yow. ñu bàyyi la nga nga nga sandiwaat bi beneen boo xamante ni bu am doole la ci voix parce que baat bi dafa neex en plus inspiration yi ñu ngi fi. si biir game bi la ma juudoo bàyyi kenn amu si part mais taala am na si part yoon bi xat lool du ma teegi from géro du ma tiit def bruit ba nga tiit fépp sa baay booy dina sëg jooy alliance ten taw débutant booy gën jël di ñu reeg duul naar bi si game bi laay jàpp juutool masa cono MC kin pi dala xaar ba sonn ñëwoo witi def si xorom black bay contrôle game bi waga yëpp laay daaneel si suuf bul siisu loo moo toog si seesu game black black boy <laughs> nice na euh, merci beaucoup euh, Lo Black ma lay jaajëfal bu baax a baax nag am naa yaakaar ni yéen ñi nga xamante ni euh, yéen a ñuy seetaan kontaan ngeen a baax ci ki nga moom laa leen indiloon tey mu nekk Lo Black macha allah ku mën li muy def ku bopp ko nga xamante ni baa ngi fi ah, soo déggee li muy rab rek man dama crise sax man ndax dafa mun yi gesuwaat leen bu baax a baax jeune talent yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci réew parce que dégg nga li loolu lay rab man yaakaar naa ni sax rab bi muy def amul kenn ku koy def parce que xale bi dafa mën li muy def macha allah neewoon naa leen ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Pikine ñoo ma toppoon di ma woo pour ma dalal ko kon dalal naa ko tey am naa yaakaar ni bégg ngeen ma di leen jaajëfal bu baax a baax waaye tamit di jaajëfal le cadreur bu mag bi nga xamante ni moom mooy Cheikhou Dramé internet yi nga xamante ni saa su nekk rek ñoom ñooy bàyyi seen xel fi nga xamante moom moo di jàmm ji Infos ayca loo balaag la woon ayca beneen yoon ak keneen ki nga xamante ni moom laa leen indil merci beaucoup et